min zulumaatil wahmi wa akrimnaa bi nuuril fahmi waftax calaynaa bi maxrifatil cilmi wa xassin axlaaqanaa bil xilmi wa saxxil lanaa abwaaba fadlika wansur alayna xazaa'ina raxmatika yaa arxama arraximin yaa rabbal alamin <coughs> mbokk yi bàyyi xel ci Sud seen rajo asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi ñu santee suñu borom subhaanahu wa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 ñoo ngi beral am nuyoo jàngkati alxuraan yi noonu la ñu nuyoo jàngalekati alxuraan yi di leen siyaare bu baax ñaan borom bi subxanahu wa taala mu def jàmm ci réew mi ñaan ko itam mu def ko ci réew yi ñu wër di bég ci ñi nga xam ne dañuy wéttulikoo baax def ko muy seen wéttalu suba si ñenn ñi léeg mu nekk leen ci léeg mu fekk leen ci waajtaayu xëy waaye ñenn ñi waxtu wi ala kulli xaal. dana fekk ñu tàqali kook seeni lal te loolu yitte dëgg la waaye aw yiwu rëy rëy moo ci nekk yàlla nañ ci dajeeg moom suñu jotaayu almisbaax yi ci jamono jii bi ñu wareeg léegi suñu tem bi nga xam ne mooy thème général bi moo nekkoon lu jëm ci wàllu aj ak yi nga xam ne moo ci aju donte am na bis yoo xamante ne daañu ci waxtaane yeneen yi tolluwaay lu mel ne démb ñu ngi doon waxtaane lu jëm ci wàllu liggéey gi ci aju ndax bis bi mu tombeeloon mu mel ne euh, aj màkka ñi ngi doon waxtaane ba ñëw ci sart yi nga xam ne mooy tax aj gi war nit suruut wujubul xaj ma waxoon la ne aj màkka day war ki nga xamante ne day matale yii ñuy bëgg a wax dafa nekk ci moom ba ci jiitu woon te ma taxawoon ci mooy al islaam lañ koy wax te mooy doon ab julit doon ab jullit euh, ñëwoon naa ci ci tënk ci yi nga xam ne moo ci aju waaye li nga ciy dégg rek mooy jaamu yàlla goo xamante ni nit ki da koy def di ci xaar ak pay ëllëg yowmal xiyaam charte bi mu am mooy mu doon ku gëm yàlla gëm yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam loolu mooy e, li ñuy joxoñ léeg-léeg di wax al islaam yal na yàlla nangul suñu aj bu ñaareel bi mooy am am xel maanaam doon koo xam ne ku ànd ak am xelam la maanaam koo xamante ne ànduta ku ma xelam aj màkka wóoru ko ñu koy wax maj nun gaa yi di ko wax dof olof yi di wax léeg-léeg ku dese wala koo xam ne daa yembadi wala koo xam ne yëppam ñëwut ala kulli xaal aj màkk ki muy war mooy koo xam ne daa ànd akum xelam lislaam daa fonk lool nit ki li muy def mu xellu door koo mën a def bu dee ci alal sax ki nga xamante ne àndut akum xelam wala ak akum xelam ñaar yooyu daa am daa am koo xam ne dañoo jàpp ne daa àndagut ak am xelam kookoot aj màkk waragu ko waaye bu ko defee dana ci am tiyaaba ak koo xam ne moom daa àndut akum xelam kooku moom aj màkk da ko dul war ki àndagut ak moom kooku la ñuy wax ku mësëragut nga xam ne dañoo jàpp ne mi ngi akum xelam waaye am xelam daa matagut daa matagut matug ñu bàyyi ko muy tànnal boppam am fu muy toll ñu ne ko mën ngaa tànnal sa bopp ñu di la ci dimbali loolu nag nit du kook moom di tànn ñu ko ciy dimbali ba ba muy dugg ci biir suuf mu nangu ñu di ñu koy dimbali wala mu jéem a demal boppam rek waaye daal ki nga xamante ne moom dafa àndut akum xelam nga xam ne euh, kooku aj màkka waru ko kon ki muy war mooy koo xamante ne daa ànd akum xelam c'est-à-dire dofut dofut dofut ki nga xamante ne euh, dafa dof moom bu demoon ajeet aj ga wérut ndax dañ koo teggi yi nga xam ne moom la ñuy gàll nit keroog bi mu tàqalikoo am xelam lañ ko teggil yooya defe naa ba ci luwaay réew mi sax ku mel noonu bu defee aw njombe wala loo xam ne luwaa bi da ko doon bañ moom du bokk ak koo xam ne daa ànd akum xelam dara dalu ko linga xam ne moom lañ koy topp jiitu woon na ca nag luwaay lislaam yi ca tëralin woowee ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax naan xalima gi bind nit ñi nit ñi seeni jëf xalima googu dañ koo yëkkatil ñett ñii ki nga xam ne dafa dof ba bu muy àndaatakum xelam muy almajnuun bu fekkee baat bi tolloo naag dof ba ca topp mooy kuy nelaw ba ba muy yeewu ndax la ngay def ci biir nelaw yi buñ la ko doon bindal musiba am waaye xale ba ba muy eh, doon ku mësër ñii dañ leen a teggil yi nga xam ne moom la ñuy ay jëf ñett ñii nag kenn ki da caa bokkoon ki nga xam ne daa àndut akum xelam ka ca topp te ñetteel ko te aj màkka war ko mooy koo xam ne dafa mësër al buluux aj màkka warut ku bu ku mësëragut warut xale waaye bu demoon aji moom xale bi lam def wér na waaye taxagut nag aj màkka wàcc ko maanaam ajuk farata gi mi ngi ci loosam bu fekkee ba mu koy dem di defi booba gimmeegut masooragut waaw booba masooragut moo tax ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak i saxaabaam daan nañ aj waaye ànd ak xale yi xale yi ne ci biir aj gi ñu leen di jàngal xale yi ànd ak mag ñi ca la ñuy def loolu moom julli mi nga xamante ne waragut ki mesure sax nit dina jullee ànd ak ci doomam julli ànd doomam def nangam da cay am tiyaaba waaye tegtalewut ne moom da ko wàcc maanaam ni nga xamante ni nit danaan aj naa benn yoon sama ajug farata aj naa benn yoon sama ajug farata euh, nga xam ne aj moom wàcc na la léegi aj nga sa ajug farata gi ñu farataaloon ci yow benn yoon ci sa dund xale bi bu ko defee te mësoor agut itam du te ajan ci loosam ba léegi bu demoon ba mu kàllafe am alal amub yóbbal am ñum àndal amug wér man ko aj da koy war du sukkandiku ca ajam gu njëkk ga day wuuteeg ki nga xam ne ajoon na benn yoon ba noppi ab jullit nag bu xasee dem ba aj ba noppi moom aj màkka doonatul loo xam ne daa war ci moom ndax aj na ba noppi benn yoon lañ ko farataal ci ak dundam ci man léegi nag bu bëggee tiyaaba mën naa wut tiyaaba ci yeneen i buntu ndax moo tax ñu farataal ko benn yoon képp ci moom léegi nag bu fekkee at mu jot mu dem at mu jot mu dem at mu jot mu dem dana dem ba mu yàgg li ngay defi moom leneen la waaye du tuddati du tuddati ak aj du tuddati ak aj ala kulli xaal eh, aj màkk ki muy war mooy ku mësër ki nga xam ne mësëragut bu ajee itam aj màkk wàccagu ko waaye lam def am na ca bu ñenteel bi mooy as gor jamono ja ñuy jàngalee ka waxtaane yooyu as gor daa amoon ci penc bi ñun ñaan ñii ay gor lañ ñii ay jaam lañ waaw jaam bi mooy koo xam ne masquulun bi xidmati sayyidihi maanaam li ko yitteel mooy liggéeyal patron liggéeyal ab sangam ki ko moom ki ko moom kooku euh, moom day mel ne aj màkka dañuy wax ne waru ko warul ki nga xam ne ab jaam la waxu warul ki nga xam ne ab jaam la ndax euh, rëdd yañ rëddoon daan cee jàppe li nga xam ne mooy ab jaam bu fekkoonte ne jaam ba ci sariya mooy jullit yaa ngi ñu duti jullit ñoo daje ca xare ba ñañ jàppe ca ñadutu jullit ñooñu dañ leen daan tudde ay jaam dañ leen daan tudde ay jaam bu fekkee nag jaami jaay doole yii rek la nag e, ci wàllu aada loolu moom beneen taxawaay lay am bu bokkut ak bii ala kulli xaal buntu jaam moom buntu bu yaatu la boo xamante ne mënees na koo beral waxtaanu boppam xuus ci lu yaatoo yaatu te du ko tax a jeex xuus ci lu yaatu te sax du ko tax a jeex waaw ndax ni nga xamante ne noonu la noonu la bindoo ak njaam ci lislaam ak nan la ko gisee moo tax boo ñëwee ci euh, politique bi l'islam tëraloon ngir jëlee ko fi bu ñuy jàngalee dañ ciy fi waaye moom euh, xamatu ko xamatu ko ci réew yi ci réew ci réew yi nga xamante ne réew yu mag yi yëpp la te doon ay réew yu jullit ak fi nga xam ne fa la jullit ñi di dund ak pas-pas bi nga xam ne moom la ñu am moo tax mu daan def ku def nangam mu ne goreelub jaam ku def nangam mu ne goreelub jaam ba noppi tëj buntu yi nga xamante ne day yokk ak njaam ba noppi ubbi buntu yi nga xam ne day wàññi ak njaam ba njaam googu lislaam tëraloon tudde ko njaam njaam googu day mujj jeex njaam gi nga xam ne mooy jaamuk aada nag léeg nit moom nangoo doonub jaam ba léegi léeg-léeg nit eh, nangoo doonub jaam léegi léeg-léeg itam nga dem ci réew yi may wax nii réew yi nga xam ne ñeen di tudd di tudd ay jullit itam am ci doxalin yoo xamante ne ña ngi ko fay dox sëñ Moussa Ka ne woon na budul ko nag français mbir ma amoon dana amaat ci saasi waaw mooy ku fanaan ci dëkk bi dib jaam ku jéggi dëkk sàngam dib jaam ku def nangam dib jaam loolu daal di nekk buntub jaay doole bu yaatu moo tax buntu boobu jaar bu gaaw lañ ciy jaar sax ndax moom mën naa bañ a doon contrainte lool beneen bi ci topp ci li tax aj màkka war nit ki mooy waxtu aj jot waxtu aj dafa am dafa am weer yoo xam ne weeru aj la weeru aj la mu mel ne bu weeru kori ba ca fukkeelu fan ba Euh, ca tabaski wa waaw mooy diir bi nga xam ne diggante boobu mooy diggante bi aj diggante bi aj nga xamante ne euh, faaw daa am période am bu fekkonte ne aj màkka jotut nga dem arafa yendu fa da yendu ca barab ba boo fanaanee mun na danga ngaa fanaan ca barab ba rek daf fay fan da nga tourisme boo demee ca musdalifa noonu waaye boo demee màkka di wër kaaba ga yaa ngay umra waaye du tudd ak aj boo doon daw safa ak marwa xay na mu tudd ak umra waaye du tudd ak aj aj màkk dafa am waxtu woo xamante ne moom la am beneen bi ci topp na te doon bu am solo mooy kii aji man ko kii aji manko ko sart la ci kii aji mu man ko mu man ko man nag lu yaatu la aj màkk mbokk yi ku ko mënut wàcc na la ku ko mënut euh, lislaam wàccee na la ko waaw nafsan illa wusaaha waaw moo tax Euh, léeg-léeg nga gis koo xamante ne dañ naan dañ koy defal teraanga daan ne dañ koy may billet màkk dañ koy yóbbu màkk jamono ji nga xamante ne dañ laa wax ne la dañ lay yóbbu màkk mën naa am yow ci sa bopp jàppoo ci dara amoo ab liggéey amoo ab liggéey mën naa am yaa ngi ay bor mën naa am sax fi nga dëkk da ngaa loué mën naa fi nga dëkk da ngaa di góorgóorlu di fay luyaas waaye mën nañoo jël nag juróom benn million la dañ lay yóbbu màkk wala juróomi million gis nga yow. jël juróomi millions yi dem tabax ci ak kër dëkk ci ak sa njaboot moo gën a nekk farata ci yow dem aji mën a goo aji yow yow yow yow mën aji ku lay dimbali dalaa war a dimbali nga am dëkkuwaay dalaa war a dimbali nga am dëkkuwaay waaye maako ko yóbbu màkk moom baax na waaye nag moom bi tolloo ci ñu di ko yóbbu da koo mënut te bi mu ko mënut bu dundoon ba dee ci condition yooyu borom bi du ko laaj lu tax aj si woo borom bi du ko laaj lu tax aj si woo waaye nag man naa am nag yoo xamante ne borom bi mën na koo laaj ci diggante bi man suñ diggante ak aj màkka moom léeg-léeg bëgg naa bëgg naa ñu gën koo ñu gën koo waxtaane waat waaw ñu gën koo waxtaane yu baree baree baree ngi dox ci suñu diggante te aada moo ñu ko diisalal bam diis bañ jàpp ne mën mënta ñàkk waaye yàlla xam na ne mën naa ñàkk ci dundu jullit bi te du tee mu doon jullit bu yàlla gërëm te du tee mu doon jullit bu yàlla gërëm moom laay junj ci aj màkk ak nga xamante ne biais politique la biais politique biais politique ab état moom bu dara desut ca mbirum socialam lu du jël ay biais di ko may nit ñi ngir ñu aji màkka war naa doon réew moo xam ne la leen war la leen war ca état tam war koo def lépp def na ko ba mat lépp def na ko ba mat mu door caa boole loola mu door caa boole loola waaye su fekkente ne am na ay ndaw ñu ne ci quartier ñoo xamante ne tey bu ñu amoon ab centre boo xam ne sax jigéen ñi dañ fay jànge rabbu wala ñu jànge fa togg wala ñu jànge fa dara ay métier la bëgg a wax alal joojee ñu jël jox ko ay nit wane ne dañ leen a yóbbu màkka bu ko defee ñu naan diw koy amu lu ma ko fayee ndax moom moo ma yóbbul sama yaay màkka gis nga yàlla moom amut kum ne la woon na la yóbbul sa yaay màkka ngir euh, loolu nekk loo xam ne day dox seen diggante moom ci boppam moo santaane aj aj gi moom lañ koy defal suñu digganteeg moom la te nee na ku mënta ñëw toogal wàcc na la ku mënta ñëw toogal wàcc na la ku amut loo tabaskiyee tabaski wàcc na la waaw ku amul loo saraxe saraxe gi wàcc na la waaw moonaam borom bi subxanahu wa taala moom dafa dafa régler suñu diggante ak moom ñun na ñoo bañ rek waaye eh, man istataa ilayhi sabila la wax ku ko man ku ko man ba noppi nag wenn yoon képp laa la woo wenn yoon laa la woo ne la boo ko mënee ñëwal boo ko mënut toogal boo ko mënee ba ñëw benn yoon boo ñëwaatut it méréw ma la boo ñëwaatut it méréw ma la waaw jamono jii léeg-léeg ngis koo xamante ne ma nga ca topp ma nga ca topp kur kur kur kur kur léeg la gis koo xamante ne sax day day nekk ndaw dajale lim dajale lépp maanaam ne léegi dama ci yóbbu sama waajur màkk wala dama ci yóbbu diw màkk loolu nag lu baax la waaye demoon yow ci sa bopp wala li nga jot dajale ta fekk sax am na maanaam kuy aji tey fi mu ne te bàyyi woo bàyyi ay facture courant yoo fayut wala nga am ay arrière luyaas wala wala wala yow li la war mooy nga toog waaye borom bi subxanahu wa taala neen la woowuma la ndax mënoo ko mënoo ko. kon aj màkk ki mu war mooy koo xam ne da koo man loolu rek lañ bëgg a wax ba noppi benn yoon la ko woo falaa yajibu ala xayril mustati daganul suñ borom maanaam aj màkk warul koo xamante ne mënu ko ndax borom bi nee na laa yukallifu laahu nafsan illaa wusaaha am na koo xam ne weeru koor day feebar borom bi ne ko ku feebar teggil naa la koor gi moom mu ne yàlla yow daal li nga bëgg man duma ko def c'est-à-dire bëgg a woon yàlla ne ko man maala ëpp man damaa damaa jàmbaare ba damay woor boo ci loroo danga ngaa xaru waaye borom bi subxanahu wa bu la bu dogalee ngant ci yow nga nangu ngant la ba noppi delloo ko ko nga nangu ngant la ba noppi delloo ko ko fay gëm fay ña man fay la lay fay fay gëm fay ña man fay gu toll noonu la lay fay. man man gi man gi léeg-léeg borom xam-xam yi tàqale ko ci ay yëf ñu ne ak man. danañ ko séddale léeg-léeg ci ñeenti ci ñeenti yëf bu njëkk bi mooy kii aji man ko ci wàllu wér yaramam ci la bokk man ko ci wàllu wér-gi-yaramam ci kattanu attan coona ba dem ak dellu si dem ak dellu si ci attan ko dem ak dellu si xam nga am na ñoo xamante ne da lay wóor fii ci àdduna boo leen waxoon bëggoon a am soxla ne dañuy dem marché Sandaga doxi ko nga ne ko yaay mënoo ko yaay li moom mënoo koo lijjanti Sandaga ak dox baak mënoo mënoo jaabante dem bërëb sàngam ak dem bërëb sàngam passeport sax mënu koo lijjanti li boppam c'est-à-dire mënta am kattanu dem toog rang te ñaanaloo ko ngir ñu gaawantu ci ay mbiram mënta taxaw 30 minutes fenn waaye nag pare nañ léegi pour yóbbu ko aj moom mënu ko mënu ko mënu ko physiquement attanut coono boobu moo tax moom dem wàcc na ko nañ ma baal na waaw ñun réew mi aj maaka mbirum mag la ndax fi nit di jaar bay aji léeg-léeg bu fay àgg day fekk mu màggat day fekk mu màggat waaye bari na mag ñoo xamante ne danañ dem ca aj ga tawaaf gu normal mënuñ ko wër wër juróom yoon kaaba gi euh, safa ak marwa bu normal mënuñ ko léeg ñu fayal leen euh, maanaam puus-puus léeg ñu dem ba àgg waajaluñ woon fayu puus-puus mu nekk ab coono ci ñoom mag ñi nekk coono ca ña leen fa ñañu ñañu àndal waaw mu nekkub coono ci ñoom ña dem nekk coono ca ñu ñu àndal nga xam ne euh, léeg-léeg nga gis koo xamante ne dana jéppi ko ko fa yóbbu woon dana jéppi ko ko fa yóbbu woon <laughs> yal na yàlla nangul leen léeg nga am ci ay ay jotaay yu neex waay léeg-léeg nga am ci yu neex paa bayoo yal na ko yàlla yërëm suñ góor ga euh, nee nañ ma génn na àdduna ndeysaan pa bayoo rek laa jàpp ci tur wi dañoo ñëw rek dem tawaaful xudum mooy bu ñu agsee Makka tawaaf gi ñi def nga xamante ne euh, nuyu kaaba gi lay tudd ci ñi nga xam ne dañoo def ifraat ñi nga xam ne dañoo def xiiraan ak tamatux ñooñu mu nekk tawaafuk umra ci ñoom ñi di ko tuddee tawaaful xudum paba yoo sonn kaaba ga lool ndax daa nekkoon mag daal yàlla xam na ko ndax buñ doon toog di waxtaan léeg-léeg la may nett li ci senegal booba kenn xamul Sénégal sax dana tudd Sénégal am déet ndax yàgg <laughs> mu daanu ñu joggi ko ci kaaba ga joggi yu metti ndeysaan maa ko doon puus ci puus puus bi nag yàlla na ko yàlla yërëm ndeysaan sama góor gi ndeysaan waaw paaba Bayo am na lu mu doon lakk ci seen lakk wi xaw ma lan la mu koy lakk rek bañ agsee ba toog ma am ku ma laaj ku mu loon nekk te ñu déggu làkk lu Paa Bayo doon wax mu ne wuy sama ndey la Paa Bayo doon wax wuy sama ndey dinaa dee ndekete loolu lay làkk. bu ma ko nee Paa ñu dem Kaaba ga mu ne ma Kaaba baaxut fi la ma ne ko ah mu ma Kaaba baaxut <laughs> waaw li ma bëgg a wax mooy Kaaba ga dafa metti waaye ci aw làkkam ak ñàkk gi di maanaam dafa metti gi mooy baaxut rek ci moom. waaw Kaaba baaxut ma ne ko ëpp naa def de <laughs> gis Kaaba gi wër koo ñu fi indi Paa Bayo mu ne ma Kaaba baaxut man demut foofu <laughs> ndeysaan waaw waaye uh, maga mage ga rek mage ga ndeysaan mage ga ay ay ay yu baree baree baree baree baree bari. Euh, góor googu jàngal nañu ko ci mbirum aj nga xam ne euh, bi mu defut tawaaful ifaada ba bisee di bëgg jeex ñuy war a ñibbisi ma ne pa ba yow mii kat faaw ñu wutal ko nag puus puus buñ ko teg euh, ngir mu mën a tawaaf fayal ko puus puus te man awma lu ma ko fayalee puus puus te ñu ko indi itam xalaatuñ woon ne pa bayo dana fay puus puus moo tax waajale wuñ ko woon noonu màkk tumuraanke fa dafa yomb nit dana yor alal ju ko doy ci fii ci senegal ñëw ba foofu léeg-léeg mu dund circonstance yoo xamante ne day tumuranke lool ñu julli ba noppi ma yelwaanal pa bayoo te xamul ne moom laa yelwaanal ma ne dafa am rek mbokk yoo xamante ne dañoo toll ci diggante war a tawaaf war a daw safa ak marwa ma bëggoon kenn ku nekk may ma dara ñu dajale ko jëlal leen ci puus puus waaw bañ pare ma ñëw ne ko pa bayoo da ngay tawaafi tey ci guddi gi mu ne yii kaa baaxut ma ko ah ki puus puus lañ lay teg puus la mu ne ma loolu yéen a waxoon dafa seer ma waaye dajale nañ ko ba noppi paa ba bayo di jooy waaw di jooy jooy yu metti ma ne ko lu tax mu ne ma ku ne ma woon danaa dund ci àdduna bañ may yalwaanal du ma ko gëm waaw ku ne ma danaa dund bañ may yalwaanal du gëm di wax nag yam bàyyi ca dëkk baak lim daj ci liggéey ndax yàgg a bëgg a demal boppam ak bokk ci ñiy dimbulee ndax fonk deret ak fonk ab yax akub juddu waaye ala kulli xaal borom bi subxanahu wa taala ndeke loolu la loolu ko bëgg a jàngal ndekete moom li muy jàng si mooy yàlla ne ko àdduna nii la àdduna nii la ndek léeg nit toll foo xamante ne aw nit ñooy daje boole seenu tuut dimbali ko ngir mu def li mu bëgg a def waaw ngir mu def li mu bëgg a def li mu bëgg a wax mooy àdduna dañuy mottalante rek waaw àdduna dañuy mottalante rek kon man gi am na ci solo lool mbokk yi ñi nga xam ne dañuy waaj yal na yàlla àggale leen. ñi yóbbu seeni wayjur yal na yàlla may leen taw tawféex ñu dem ci jàmm dellu si ci jàmm ndax bànneex la te lislaam bañu ko waaye nag nañ sàmmonteeg man gi man gi waaw man man gi farata ci ki ko man lañ ko sant ta benn yoon lañ ko sant man googu nag ñeenti yëfa ngi nii yoo xamante ne borom xam-xam yi bàyyiloo nañ ko ci xel mooy ba ca jiitu mu amug wér moo tax ñu def visite médicale ci kanam tuuti boo demee fële ci Angal Péréné da nga fekk ñi waaja aji ñëw foo ñu leen defar visite visite médicale waaye néew na leeg léeg looy gis ku ñëw def visite ñu ne ñu ne kii mënta dem ñu ne kii mënta dem maanaam day mel ne moom daal da lay yéem lool da lay yéem lool visite visite boo xamante ne moom daal tubarkàlla visite visite médicale yi am na ci solo visite médicale am na ci solo maa ngi nuyu baax docteur Fatou Fall ak mboolem ña nga xamante ne ñoo fa nekk tey taxaw euh, ndeysaan pèlerin yi ci wàllu seeni wisit wisit ñi nga xam ne ñooy ànd ak ñoom di dem ca aj ga ñoom docteur Anna ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy àndal nga xam ne léegi si docteur boo xam ne du yem ci wisit nit waaye day dem ba jëli kopparam day dem ba jëli kopparam di ko jox pèlerin yi nga xamante ne ñoom lañ ndax ci wàllu feebar léeg-léeg banque ak jaaxle cim réew te yorooloo jënde dara mën naa indi nit ay feebar kon wér gi yaram ba am kattanu ñu jàpp ne ci mën naa dem mën naa ñëw ci loo xamante ne coono bi du ko lor coono bi du ko attan na ko. waaye man gi da caa bokk manuk yor alal ju doy yoo xamante ne dana ko mën a yóbbu andi ko doyul rek ci nit ki nga koy yóbbu li nga ko fayal ci avance bi koy yóbbu loolu nag mooy li mënta ñàkk moom ndax boo ko defut sax du dem na ko tànnal avance boo xamante ne nii bu dee sa way jur la te nekk mag bu mu doon ñoo xam ne dañ ñaan bu ñu àggee dañ koy jox mooy jënd añ wala mooy jënd nangam déedéet léegi moom fi jamono toll fi jamono toll ak ñun liñ ci jot a dund ci expérience li gën mooy koo xam ne danaan la. bu ñu àggee ñoo koy jox añ ak reer ak ndékki bu ko defee mu noppalu moo xam lekk ga daa naqari moo xam lekk ga da koo da koo miinut woon moo xam bu dee ca hôtel ba ak restaurant ya da cay am lu mu bëgg lu mu bañ mu fexe ba ñu dimbali ko ba mu tànn la mu bëgg tam xelam nangu ko mu lekk ko ta noppalu noppal ñam àndal bu loolu jàllee nag na doon koo xamante ne waajal nañ ko nag ci muy soxla waajal nañ ko ci muy soxla léeg ngis mag moo xam ne day am jafe-jafe ca wecceeku ba jafe-jafe ca wecceeku xaalis ma léeg mu am jafe-jafe ci jëndum ndax dégg ne eh, lu ne mënees na ko fii jënd moom it mu yaakaar ne loolu lu am solo la waaye na nga leeral say waajur ne leen loolu yóbbuwu leen fa am na ñoo xam ne sax sërite yi fii lañ koy jëndee ndax la ñuy jëndee foofu yëpp am na fii lu dul sam-sam sam-sam sax dañ koy indi fii waaye sam-sam daal moom ku ko ku la ko indil sërite jëlee ko màkk sam-sam moom màkk lay jóge waaye ci des yëpp nit mën na koo amee feneen te bitig yaa ngi fii bu dee séddalee kolla ak kurus moom ak i kaala ki i jullikaay yooyu boo ko jëndee fii sax noppal ko ala kulli xaal na yor lu ko doy na yor lu ko doy bu ñaareel bi ñu ne am lu ko yóbbu loolu moom am na ci sarti yi lañ ko tërale woon bu ñeenteel bi mooy mu wóolu yoon wi loolu mooy nga tànnal ko ñi muy àndal nga tànnal ko ñi muy àndal teg ko ci loxo yi ñi nga xam ne ñoom nga wóolu bu ko defee ñu ànd ak ñoom ndax foofa doy na waar lool lool lool mu metti waaw léeg mu metti maa ngi nuyu sama mère ba mère jongu ba mu réeree hé mère jongo fajar rek waa këram dugg ci groupe bi ne suñu yaay daa réer daal di yeewu Sénégal ñoom ñëpp toog te réer màkk kat léeg-léeg ci réeru mag du doon dara waaye jaawale ñaari buntu dong mën naa am bu dee da jox sa yaay téléphone ne ko dee ñu whatsapp lu la jaaxal wax ñu ko ñun waa senegal <laughs> léeg-léeg eh, mu jaaxle jaaxle gu ndaw te fekk loolu kat ci biir avance bi la manees na ko waxtaanee waaye bu ko gaawee wax waa Sénégal musiba am ndax dañuy dugg ci groupe bi asalaamaaleykum yéen liggéeyu leen suñu yaay dafa réer <laughs> bu ko defee coow lu ne pour aj màkk lu ko gën a xoromu amut xam naa ku ci defoon film ci ajug sénégalais dana am ay séquences yoo xam ne dana reelu lool waaye dana ci bari yoo xam ne am njàngat lay doon dana ci am yoo xam ne it dana wane ñun ñooy ñan yàlla yàlla may ñu ñu àgg ci ak jàmm jàppale ñi nga xam ne ñoo koy waajal ñëpp bañ dem ci jàmm dellu si ci jàmm